jungle. jërë ngeen jëf mbokk internet yi safoo RTV Dakar ci xibaar yu wér te wóor njiitu réew bu Tunisie nag ay bés yu ñu génn yemook talaata yemook ñaar fukki fan ak benn ci weeru février gannaaw nag bu mu yëkkatee ay kàddu rek daal di koy jëmale ci migrant africain yi nga xam ni jàpp na nag ñeen dañ ci subsahariens yi dañuy daal di ah, yëkkatee ay koppar di ko jébbal ñooñeen ngir rek ñu daal di mën a daloo ñoo nga xam si ni moom moo di migrant africain yooyu loolu nag daal di jir coow ca biir réew ma ak biti réew ba tax nag ñu bari daal di jëg di ñaawlu kàddu nga xam si ni daal na koy yëkkati jëmale ko ci li nga xam si ni moom lañ mën a jàppe ay booteeku ci ay mbootaayu xeet yu mel ni ay africain yi ba tax na sax kële nekkoon fi ancien premier ministre bu Sénégal di wuyoo ci ak turu Aminata Touré doon it candidat sax ci élection présidentielle yu ñu jëm yamook ñaar fukki fan ak juróom ci weerum février 2024 Aminata Touré nag di laaj lan lay président africain yi di xaar rek pour daal di jóg rek daal di ñaawlu li nga xam si ko mu jëm ci wàllum booteeku xeet nag muy daal di àddu rek di xam président africain yi nekkee fii ci Afrique loolu nag ma ngi ko daal di xamle rek ci benn post bu mu def ca Twitter loolu nag moom da ko daal di jàppee rek lu ñaaw la lu jógee ci président boo xam ne sax ma nga bokk ca Union africaine ki fi nekkoon nag tetu liste Benno Bokk Yaakaar élection législative yi ñu jëy moom nag dafa daal di jàpp ni mel rek kii di président Macky Sall ña ngi ko ci xaar gannaaw nag ba mu jeexee jeexalee li nga xam si ne moom moo di mandaam ca tetu Union africaine boobee nii question bi nag nee na moom lii daf ci ko ci mujjee interpellé moom directement moom président Macky Sall moo même mu ci xaar nag moom mu daal di ci réagir nu mu gën a gaawee ngir rek daal di ñaawlu la nga xam jotal nañ ko amal ay kaddu daal di koy teg ci xeetu bu ñuul en kaddoom yooyee sax moom président tunisien booba nekk kàddu yoo xam ni euh, ña nga koy ñaawlu ba tax sax ñu bari di ko daal di méngale ak théorie ba nga xam ni kële di Éric Zemmour bu France daal dina ko doon def jëmale ko ci xeet bu ñuul loola nag ma nga yëkkati rek gannaaw ba ñuy defal benn réunion bu conseil de sécurité bu euh, dëkku Tunisie kay sayit nag daal di yëkkati ay kaddu rek ca ña nga xam ni moo di migrants yi clandestins yi nañuy dugg see foofa ca biir réew ba doon nag loo xam ni ma ngi koy daal di insister rek nañu daal di def ay jéego daal di arrêté lu ni mel parce que moom dafa daal di jàpp rek loola nekk loo xam ni lu yanu maanaa la lu jéggi dayo daal la ko daal di jàppee dëkkoowul ak benn yoon ci ak xelam daal jiitu réew wu Tunisie nag daal di xamle rek rek ni immigration clandestine bu ni mel nag dafa nekk benn entreprise criminelle boo xam ne dañ ko daal di organiser rek ci siècle bi te loola nag dafa jàpp ni dafay daal di changer mbootaayu xeet ya nekk foofa ca biir Tunisie ba tax na rek moom réewum Tunisie sax dañ koy daal di mën a considérer rek bu yàggee lu muy benn pays africain rek te loola nag lu mu mën a gàntal la comme euh, benn caractère boo xam ni arabo musulman kese lay dool di doon ca booba réew kàddu ginnaaw yu daal di yëkkati moom président tunisien boobee sax loola nag sagalul benn yoon Afrique ci jamono joo xam ni sax Europe ñoom ña ngay jëf lu ñu mën rek ci wàllum yoon wala wàllum politique ak ay barrières yoo xam ne dañ koy daal di yëkkati rek pour rek gàllankoor lii di Afrique africain yi ngir ji daal di dugg si seeni biir réew ko ko lu nag du kenn rek ku dul Boubacar Seye patron Horizon Sans Frontières nag dafa daal di jàpp rek réewu Afrique réewu Tunisie ngir mu indi ay jéggalu yoo xam ne da koy daal di def publiquement ah, te it ambassadeur Tunisie yi nga xam ne dañ leen ay envoyé ci pays africain yëpp dañu leen war a convoqué rek ngir ñu indi ay explication ci kaddu yi nga xam ne seen njiitu réew daal na koy yëkkati jëmale ko ci xeetu africain yi moom sax mu jàpp njiitu réewu Tunisie bi rek dafa am ak réere ci droit international ndaxte bu suñu sukkandikoo ci chapitre ba nga xam ne ña ko daal di forcé ya pays d'accueil ba nag dafa am lu moo xam ne si daf lu ko warloo ci droit obligation morale jëmale ko ci li nga xam si moom moo respect ci àq ak yelleefu convention yi nga xam ne si nañ ko daal di xaatima jëmale ko ci boobu boobule pour Alioune moom moom dafa daal di jàpp rek da njiitu réewu Tunisie bi dafa dal di xamul sensu réalité yi nga xam si moom moo ci ne Kais Saied nag moom dafa dal di doon nag rek benn dictateur jëm ci wàllum raciste ki nga xam ne di Alioune nekk njiital Africa jam sent mbokk yi xibaar yu wér te ci rtb Dakar la.